الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله القائل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته بالليل والنهار فهو القائل في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله ماذا بعد الصحة إلا السقم وماذا بعد البقاء إلا الفناء وماذا بعد الشباب إلا الهرم وماذا بعد الحياة إلا الممات إخوة الإيمان إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل عافية أن تتوب قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كما قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال جل في كتابه الكريم أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه البخاري mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala miy jéggale bàkkaar yi yàlla mi nangu tuubi moom dong waaye yàlla subhanahu wa taala mi tari mbugal ñu ngi seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom moom mi ñu wax ci alquran ni ñi nga xamante ni de ginnaaw bi ñu jëfee bépp ñaaw téef wala ñu tooñ seen bopp maanaam ñu toggoo bàkkaar fasaasa rek dañuy tudd seen boroom subhanahu wa taala mooy ñu jéggalu ko yàlla suñu boroom jéggal leen ndax amul kenn kuy jéggale bàkkaar ku dul moom ginnaaw bu ñu ko jéggaloo nag du ñu delluwaat mukk di def li nga xamante ni moom lañ tuub jéggalu ko seen boroom ñuy seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppeem la ndawam la xaritam la jaamam la moom de wax nañu ci xadis ni ay yéen nit ñi tuub leen jëm ci seen boroom ndax man nii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa tuub ci sama boroom ci bis bi lu tolloog téeméeri yoon borom xam-xam yi nee nañ jublu ci limu téeméer rek nga tuub téeméer rek yam ca waaye nga baril di la koy def moom mi nga xamante ni yàlla mu ne inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddama min danbik ma taaxar moom mi yàlla jéggal ay bàkkaaram nee na moom day tuub ci boroom subhanahu wa taala ci bis bi lu tolloog cent fois mbokk ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ak di ko fuglu di ko bàyyi xel guddi ak bëccëg ndax moom subhanahu wa taala de dénk nañu kàddu yooyu ci alquranul karim mu ni ay yéen nit ñi na ngeen ma ragal ragal leen seen boroom ne leen sàkk ci benn bakkan muy suñu maam aadama mu sàkk ci suñu maam aadama xawa boole leen ñoom ñaar ñu sos ay njaboot yu góor ak yu jigéen yàlla mu ni nag nañ ko ragal mooy ñuy def lu baax tey bàyyi lu bon te ñu bàyyi xel ci mbokkoo bi nga xamante ne moo dox suñu diggante di bàyyi xel ni yàlla suñu borom de mu ngi ñuy fuglu mu ngi ñuy bàyyi xel ci lépp lu ñuy def kon lépp looy def ni nga ciy bàyyee xel say borom di ko def ngir moom na nga jàpp ni lépp looy def it moom borom subhanahu wa taala mu ngi ci ni jàkk di ñu bàyyi xel mbokk yi umpalewul ni ginnaaw wér wér di moo ciy topp waaye ginnaaw dundit faatu moo ciy topp ginnaaw shabab jeunesse bu la yàlla defee fan nga gudd ca màggeen nga jëm naka noonu it la lii di xolu doomu aadama ba nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn lumbu deret bu nekk ci doomu aadama bi mu ni ida saluhat saluha al jasad kullu wa ida fasadat fasada al jasad kullu ala wahiya al xol mu ne am na benn suux bu nekk ci doomu aadama boo xamante ni bu sellee rek jëfam yëpp day sell waaye bu taqee rek jëfam yëpp day manqué mu ne loolu de mooy xol bi xol bi nag la koy feebarloo mooy bàkkaar bu jaam bi di toggoo ba xol ba tilim bàkkaar bu xol bu tilim nag xol bu tilim ci ay bàkkaar la koy setal mooy nga tuub dellu su borom subhanahu wa taala mu jéggal la say bàkkaar yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko nabbi mooy xibaaral ibaadi sama jaam ni an nii naka man yàlla anal gafuur man da koy jéggal la bàkkaar mu mën a doon arrahim ku bëri yërmaande la yàlla nu yàlla jéggal yàlla suñu borom waxaat ci alquran karim mu ni wa tuubu ila allahi jamian tuub leen jëm ci yàlla yéen ñëpp nag ayyuhal muminuun yéen way gëm yi laallakum tuflixuun ndax ngeen bokk ci ñëwee texe yi naka noonu tamit la borom subhanahu wa taala waxee mu mel ni sax dafay tëb ko ñi nga xamante ni du ñu tuub di dellu ci moom mu ni wa man lam yatub képp koo xamante ni tuubuloo tuubuloo fa ulaaka umu daalimun ñun day tooñkat dëggantaan lañ kon yàlla dafa mel ni dafay tëkku ñi nga xamante ni dañ koy ñàkk bañ a tuub di delluwaat ci moom naka noonu la borom subhanahu wa taala di ñu xamlee nag ni ana naka mooy tuub bu yàlla di nangu tuub bu yàlla di nangu moom la ñuy tax wax tawbatan nasuuxa mooy tuub bu sell olof day wax ni boo gisee fii ab tàkk-tàkk boo xam ne lii safara la lii ay xal la boo tëbee dal ci biir xal yi olof danaan la des na beneen tëbin ku tëb dal ci ab xal mu ne des na beneen tëbin mooy foog nga tëb pour génn ci xal ya te boo ca tëbee génn moom kenn mënul fexe ba nga dellu ci waat ci xal ya tawbatan nasuuhan nag moo nekk noonu def naa bàkkaar bi dafa war a nekk ci sa biir xol bi nekk gàkk-gàkk nga koy tuub suñu borom di am yaakaar ni mu koy nangu waaye du dañ ci yow nga koy tuub tawbatan nasuuhan nga yéene nag ni loolu ma tuub dootuma ko defate ilaa yawmi diin moom la borom laxdari wax ni wa shurutu tawba an nadamu ala ma faat wa niyatu an la yahuda ila danbin fi ma baqiya min umrihi moom la borom subhaanahu wa taala wax ci alxuraan ni yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha ay yéen ñi gëm tuub leen jëm ci seen borom tuub bu sell asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum xal set na seen borom mu faral leen bépp bàkkaar boo xam te ne defoon ngeen ko wa yudxilukum jannaat génnaaw bi mu tàbbal leen biir aljannatul firdaws yàlla ka defar aljanna yoo xamante ni tajri min tahti al-anhar mi ngi daw ci suufu aljanna ja ay dex yàlla nañ ci yàlla defal mbokk yi kii di Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nee na daana toog ci jataay di wàññil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ toog di wàññil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jataay muy wax a ji naan rabbi firli yow yàlla jéggal ma wa tub alayya ñu ngi tuub di leen si yow innaka anta tawaabu rahim ndax yow yaay jéggalaakoon bu bëri yërmande bi nee na daan toog di wàññi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi koy wax saa bu toogee benn intervalle rek waxaat saa bu toogee intervalle waxaat ko ba mu mat cent fois moom alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ci yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci yërmandeem nee na moom de asamaan sii ñu tiim nee na chaque guddi amul congé amul jëllal nag day wàcc ba ci asamaan si ñu tiim ci jëmmam ji moom muy waxoo ji mu ni hal min taibin fa atubu alayhi ndax am na ci yéen ñi tëdd di nelaw kuy jub tuub rek ma ma jéggal hal min saahibi xaajatin fa aqdiha ndax am na ci yéen ku am aajo soxla mu jug rek diis ma ko déen déeg man rek ma fajal ko boobu lay aajo mu ni hal man yastaxfiru fa axfir lahu ana kan ci yéen moom mooy jug jéggalu ma rek ma jéggal ko ay bàkkaaram mbokk yi chance boobu yàlla defal nañu ko te loo xamante ni amul congé amul ci retraite chaque jour chaque guddi yàlla neen loolu dama koy def mbokk yi yàlla fi mu daan sotti ba tey ma ngi fay sotti xanaa ñun ñoo déggatul wala ñu ñàkk dégg rek yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp aqul ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom kenn kese mi jurul kenn te kenn juru ko moom yàlla bi nekkul nawle ci kenn di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla na ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp si njubam di rafetal ba ba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam fii mbokk yi suñu ñaareelu taxawaay mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla jéggal ay bàkkaaram Abdullahi ibnu Amar ni daan nañ wàññi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jéggalu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax nee na baat yi ñuy jéggaloo yàlla alphase kaddu yi ñuy jéggaloo yàlla am na ci boo xam ne mooy seen sang moo féete ko bépp baat booy jéggalee yàlla booy jéggaloo yàlla mu tuddee ko sayyidul istighfar sang yi ñuy jéggaloo sangu ñaan gi ñuy jéggaloo yàlla hadith bi Shaddad moo ko nettali ibnu Aws mi ngi ci saxiix Buxaari yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ni képp koo xamante ne xëy nga ñaan ñaan gi nee na fekk mu nekk lu dëggu ci yow balaa jant soo boo faatoo yàlla na dugal bi aljanna képp ku gont tamit wax ko tëdd boo faatoo ci guddi gi boo xëyee suba aljanna ngay den ngay dekki ji mbokk yi ñaan gi nag est-ce que ay wax la yii rek ñuy wax ñaan gi mooy allahuma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika ma stata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ñaan gal gi noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kàddu yi képp ku ko wax di nga am lii ma wax léegi ñaan gi nag mbokk yi mooy da nga naan yow yàlla yow de yaay sama boroom nangu nga ni amul kenn kuy sa boroom ku dul yàlla laa ilaha illa ant mooy amul kenn ku nu war a jaamu ku dul yow nangul nga ko ni moom dong mooy alwaxdaaniyatam nangul nga ko ci kennam xalaqtani mooy yow yaay ki ma sàkk nangu nga ni yàlla mooy ki la sàkk mooy sa borom wa ana abduk mooy man de yàlla nangu naa ni yow maay sa jaam man sa jaam laa nangu nga sag jaam ci yàlla bari nañu gëm ni yàlla am na waaye nanguwunu jàmm ñooñu du ñu am benn raful darajaat ndax yàlla reconnaîtreul seen ubudiya yow nag nga ne ko man mii de yàlla nangu naa ni sag jaam laa bu suufe nag wa ana ala ahdika mooy ni yàlla bam ñu sàkkee laata mu ñu wàccee ci kaw suuf daf ñu laajoon ab laaj mooy alastu bi rabbikum ndax néew ma seen borom ruux yépp ba ñu juddoogul tontu nañ laaj bi ni balaa aha kay yow yaay suñu borom yàlla waxoon ñu benn kàddu nag ni seede naa ne am na ci yéen ñoo xamante ne bu ñu demee ci kaw suuf wax ci dinañ ko fàtte leneen la ñuy wax am dinañ weddi loolu waaye yow ci ñaan gi yaa ngi koy xamal ne ko yàlla la ma dëlante woon ak yow maa ngi ci ab jaam laa nag buy juum te juum te nga nga jëm moo tax nga nangul ko ni ko la ma dëgle woon na yow maa ngi ci sama képp nattan nag wa a'udhu bika man masataatu a'udhu bika min sharri ma sanaatu mooy bakkaar bi doomu aadama bi di def benn bakkaar bu ndaw rek yàlla mënoon na la cee mbugal wàcce la ci mbugal fitna waaye nga ne ko yow yàlla maa ngi lay sàkku di muslu ci yow ci bakkaar bu ma def nga jéggal ma ko bañ ma cee mbugal abu'u laka bi ni'matik mooy bépp garaat nag bu ma am wala xéewal bu ma mën a am yow yàlla nangu naa ni yow yaa ma ko jox lépp lu ma mën a am ci kaw suuf yow yàlla yaa ma ko jox ndax ba may gane si àdduna damaa bank samay loxo indaalewu ma dara yëre ma sox sa indaalewu ma kon lépp lu ma fi am muy daraja lu mu mën a doon yow yàlla delloo naa la njukkal bi mbokk yi bu ngeen settantalee ñaan bi bi ñuy dale di wax ba léegi dañuy tagg yàlla di ko bàkk di ko kànnal dafa tey wax guñ fi soxla yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne sayyidu istighfar moo nekk noonu mu ni wa abu bi dan bii bàkkaar bi may bëgg a wax nag yàlla te jarul ma koy wax ndax xam nga ni maa ko def loolu du acte de reconnaissance yaakaaruma ci kenn mu jéggal ma ne koy yow kon faghfir li baatu istighfar yaa ngi koy soog a tudd ñu ngi koy soog a tudd ci ñaan bi faghfir li yow yàlla jéggal ma fa innahu la yaghfiru dunuba illa ant amul kenn kuy jéggale bàkkaar ku dul yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii kenn du ko wax mu doon lu dëggu ci yow loolu yàlla dalaa jéggal say bàkkaar te boo ci faatoo ci waxtu wu mën a doon boo dekkee yowmal qiyaam biir aljana ngay dekkee yàlla ci yàlla defal mbokk yi kon lii di al istixfaar liñ ciy déggante mooy julli bi dafa war saa su nekk di tax koo al istighfar di jéggalu borom subhanahu wa taala guddi ak bëccëg ñaareel ba mooy comme ñun ay xattaun lañ ay juumtekat lañ ci juum def def njuumte ay njuumte rek lañu dëkk yàlla mu ni ni ngeen di juumee man noonu laay di xaaree ngeen ñëw jéggalu ma moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne saay bu ngeen defee bàkkaar na ngeen ko jéggalu daal di def ca saasa nag ay yiw lu lay jural ay tuyaaba tam fuufa ndax mu supprimer lee nga xamante ne moom nga defoon ci ay bàkkaar ñetteel ba mooy ginnaaw bi nga xamante ne yow environnement ba nga nekk bii amul law wasala environnement bu pollué la ci ay ñaawteef yu njom de nee na fexeel ba ña ngay àndal yow boo mun boo fu mën la jóge fexeel ba ña ngay àndal doon lu sell nee na dina tax ba sa tuub nekk loo xamante ni looy mën a réserver la ba doo delluwaat ci la nga tuubee woon muy bàkkaar ba ñuy fegal suñu bopp di fegal suñu njaboot safara comme ni ko borom subhanahu waxee yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ay yéen ñi gëm na ngeen fegal seen bopp sawara waaye ngeen fegal koy seenu njaboot fi ñuy tëjee suñu xutba mooy xale bi nga xamante ni moom bi mu déggee aaya bi dafa toog ak waajuram bu jigéen di ko jàppale ci waañ bi mu war a taal taal añ mu gis yaay ji mu jël matt yëpp jóore mu jël yaay ji daal di taal ba tàkk-tàkkaam yaay ji tàmbalee jël nag matt yu ndaw yi matt yu ndaw yi di ko dugal ci sawara laataa mu jaar ak la ci matt yu dijji doom bi nga xamante ne tolloogul sax kun koy toggee bàkkaar matagul sax mu kàlla mu ni waay yaay mbaadu yowmal qiyaamati yàlla xamb gi mu nar a xambee sawara xale yi la nar a jiital fa cee teg mag mi subhaanallah xale bi jox na way juram dar waaye joxaale ñu dar suñu nii ci ne lépp looy def ci lu baax na nga ca bàyyi xel sa njaboot tàggat ko ca mu màggaale ak loolu waaye garab doo bàyyi ba mu doon lu dëgër tëj nga ne da nga koy jubbanti ci dam rek lay mujj ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصويب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله